gars yi siyaaraat nañ leen ñoo ngi tey jii nii ah toujours ci seen émission xam nga les bon coins de de tey jii nii ñu ñëw fekk si ki nga xamante ni si mooy Libaas Libaas nag di koo xam ne ay ay ay tente lay loué fii nii ay parasol lay loué pour plus de sécurité ak yooyu noonu xam nga du ñàkk ñu laaj ko Libaas ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay sama gars leen nuyu yéen ñëpp waaw ñun moom xam nga affaire nii la demee ko waay yàgg na fi dañ fi ñëwoon nii comme nii la dañ fi doon ñëwee indi sunuy baraada kaas jógee Cambérène ñëw teg ko fii nii mais da ngay gis ni booy dañuy dugg si ndox bi te xamuñu ndox bi boobu noonu sapeur yi sax ñëwaguñu. léegi ñu def fi 10 ans léegi ñu def fi 10 ans fii nii waaw daaw rek 18 booy laa fi génne yoo xam ne ma leen bàyyi woon ñu dee si ndox mi barki alxuraan lu karim. yow yaay daw fee dem génne. daw ak samay xarit sax ñoo xam ne xam na ndox mi ñun Cambérène lañ dëkk ak samay xarit yoo xam ne dañ may fréquenté fii nii ñëpp 18 yëpp du man ko waa ak samay xarit billaay xam nga daan am sama sànci peinture pare peinture peinture kër gi ba mu pare mu am si benn cinquante mille wala benn cent mille daw jënd sama ñetti parasol ñëw teg bu mu amul sànci ñëw toog fii nii en même temps en même temps ci biir sëfoor laa damay dawal. yaa ngi dawal ba léegi yaa ngi sànci ba léegi. no gëj naa am sànci nag mais léegi nii nag fu ma toog nii rek ñu ngi may woo. pour benn est-ce que fi mu toll nii parasol yi daaxul sànci. non même bu dul loolu sax xam nga ñun ay jaamu yàlla lan bu lool loolu instant géej gi nu muy amee nit nii beneen yoon dootu ko amee nit mais instant yi dañ toll si période géej gi nii. wax nga dëgg wax nga dëgg ak été bi nii nii dañ ciy toll mais euh, lan lan nga mën a wax ci ñi nga xamante ni dañuy ñëw war a jël parasol parce que lan mooy différence ki ñëw jël parasol nga xamante ni si dafa ñëw rek dem toog fu ko neex. non loolu moom xam nga ça dépasse sa poche rek. sécurité lay doon wala. am na ñoo xamante ni dañuy ñëw sax xam nga naaj bi du tàng mais ñoom ñoo lay yéene seen mille francs wala 1500 pare saa nga loué ko 1000 1000 francs muy ñibbi jox la 3000 wala mu jox la xam nga ndax. affaire bu nice bi quoi sécurité beeg yooyu noonu boo ko xasee ba luwee ni say bagage yëpp ñun ñoo koy xool man nga dem sangu ji ñun ñoo lay toog xoolal la say bagage les parasols di day varier par ñaata lañ ngeen koy parasol yi parce que ça dépend rek ça dépend rek ça dépend rek parce que nombre de personnes bi waaw waaw waaw bu dee ay dimanche bi ni moom boo amul 1500 moom doo si toog quoi jour ordinaire yi. waaw bu dee jour ordinaire yi moom dan la koy jox sax 1500 par exemple ñu gis la ngay toog dee si naaj ñu xam ni carrément géej gi amul nit ñun la kaay nii. ci ci kii yi ci maam bagage jàmbur yeeg jiw loolu moom wax dëgg yàlla mosunu mosunu kii fii parce que ñun comme nii rek ba nga taxawee ne rek ba ngay ma nga la gis ngay xool nii dan lay xool client laa tegoon boo nekkul client doo doo jege fee nepp parce que boo fa taxawee ma fekk la fa waaw. bo fa taxawé dama la fay fekk la gaan lo bëgg parasol bo bëggul parasol timi da ngay génnaat dem. waaw nah, mais est-ce que des fois aussi euh, di am ay couple fi ñëw am ay problème ci ci seen biir ak yoy ngeen war ko arranger non lool timit mom it amagu fi ko wa non non gisugun ko fi dé dëgg yàlla. ñu fi ñu fi ñëw ñëpp mom waxtaan nek seen jàmm moo leen fi indi buñ paré dem. waaw gars aussi duñ ñëw fi manam sécurité wala police ak yoy di leen di leen. non c'est normal police yi par exemple ñëw fi mais ñom xam nan parce que ñun fii am na ay agresseurs yu fi doon nekk nii da ngay ñëw sax fekk na ñun ñu toog ñun nga bëgg nu agressé ñun fekk ñun ñoo fi teg affaire yi nii dañuy xeex ak yow ba feenee si rompin bi ba si rompin bi dañuy xeex ak yow ba si rompin bi fekk policier yaa ngi foofu noonu toog ñu jël la yóbbu. waaw parce que ay temps aussi daan nañ dégg géeju Malibu dafa dafa doy waar dafa doy waar mais léegi moom daa mel ni. waaw instant bii moom wax dëgg yàlla moom. nice quoi gëj na fi am yooyu yëpp policier yi sax dañu xam si loolu noonu parce que dañuy xeex ak yow ba àgg fee ñu jël la yóbbu ana benn gaañaan boo xam ne boo leen fi toogaatoon tuuti léegi da leen fiy fekkat moom géejawaay la dëkk daf fi doon nekk di saltel mais ban xeex ak moom ba police yi yóbbu ko ba mu ñëwaatee carrément daf nu fekkaat fii ni nu carrément gaañaan maa ngi jégalu xam nga maa nekkul woon si yoon affaire yooyu noonu ba léegi nii sunu xarit la fi lay naan ataaya da koy yéen yéen yéen yéen a yombalal police bi seen liggéey waaw billaahi wallaahi taala d'accord Libaas ko euh, kontaan nan vraiment euh, ñu ngi ñaan liggéey bi gën gën a yokku gën a avancé. ñaanaat maire bi rek xam nga. mu gën nu dooleel ko waa xam ne ñun dund ay saldelkat xam nañ si géej gi dara. parce que alxuraan ko def sapeur yi xam nañ nu mu demee. leen jox ay équipement ak yooyu quoi. am amuñu dara amuñu équipement amuñu dara suñu bopp la ñuy dem ñoom bu leen neexee mën nañ sol seen i gilet ak yooyu ñun duñ sol dara ñu ànd ak ñoom parce que alxuraan ko dem ñoo njëkk a wàññeeku. message bi moo ngi noonu maire yi maire yi gën leen a jàppale jeunes yi parce que fi mu toll nii euh, jeunes yi di daan seen doole nan leen dimbali nan leen jox ay matuwaay ndax ñu gën a mën a gën leen a encouragé ci ci liggéey bi donc Libaas kontaan nan bu baax a baax